Mekula Mani Doma Sidi guy jàpp benn qualité jël borom anda mbaal fardul jaamiu bi Doma Sidi Barhama mbaal ki fees naag jël waaye lépp du teeri nangaan borom gis mu tax Sidi Barhama baada war nay gërëm ko ba tey bam xool asamaa allah kubar gaa yi gëm leen sidi barhamma de leen xool ci ceeboli su ma gaay kon ngeen ràññee baay dafay doxal gëm leen sidi ma ceebo day doxu weer day kaamil muskur laa majmuul bahrayni ñëw na moo di barhamma xam na yenn njanaaw bu ñu kàddoo ma dellu fannaaw barxaama won ma ci kawteef siidi barxaama yooye wax ja ñuy wax daf may dolli xaal ma sopp ko dégg da nga siidi barxaama ku bëgg a xaatir siidi barxaama war ngay dappak ñoom dañ ca jëlee jës bu maj soob siidi barxaama maj soob bu leer amee boo ràññee sirru ba ca ñoom dootoo wax lu jëm ci Mansour si di barahama Ibou Diouf ne bu min wi jotee bu min wi jotee xamaamatu xayaar xayaar xayaar xayaar xayaar xayaar xayaar daal de bàkk bàyyi man ma toog da xaatir si di barahama Ibrahima Diouf melal ni ki reetee mu dimbali laar tem-tem gis na ninki moo de barhaama Ibrahima Diouf dootuloo noppeeti fileeg ba ngay dee picca moyang ceebo lay sab Sidi Barham ma ba nga àndeeg sa dix ba ci biir kan ma ngir bañ mu gaañu noon ya dañoo daldi bémpéng Sidi Barham ma ba infir sa ñëwee ba ca buntu kan ma dañoo ngëla xam ma matu idoon Sidi Barham ba ñuy teeru baay Barhama kër Amat Gayda saabu yeja daw lu doy waar Sidi ma ba watiir ba kornoo ca buntu campement ba keroog ndaw lu yéem voiture ba bornoo ca buntu campement ba keroog ndaw lu yéeme nit ña dañoo dalde sàppaal ñëpp laanu siidi barhamma mar di ja ca ja yor ja doy na kéemaan baay ñes kumba ba nga ànde commandant ba Sidi Barham ma commandant cercle ba moo jóg taxaw ne yi déglu leen ma damay tuural abal faydu Sidi Barham ma commandant ba tuura ba mu agsi mu ngay maajal baay mu ngay maajal baay mu ngay maajal baay mu ngay maajal baay mu ngay maajal baay min ca siis ba Sidi Barham ma ba insaanu kaamil ba tuddee yàlla xol yi rëccandoor yaram baa nga mel ni mbéebal siidi barhama ba barhama kàddoo keroog billaahi wallaahi suma xol bi daf doon leer ni weer maa ngi janoog baxru malakoot siidi barhama kon alhamdulilahi nañu sant ibnu abdoulahi saxoo wirdo sax ci ànd ak siidi barhama nañ leen dellu bëggante boole koog àndoo xol yi lab am na njiit ci pays alam Sidi Barhama njiit li soo ko njiit li soo ko njiit li soo ko xamul Baay Ñas ibnu Abdoulaye moo de njiit ci pays alam Sidi Barhama mboolem xaalam yi ci biir mulku ak yëcca malako xaalam boo ci taxaw janloog Sidi Barhama bàyyi seydil wujjóot bi aalamu shurat bi yaar sawal suñu rooyi jàpp suñuy xol yi naatal billaahi jëmm yee gëlëm waaye roxo yi xàmmee nañ la bàyyi yaa dekk leen génne ci tiis Sidi Barhama yàlla tànn roxoy roxoy kaste ko ci ndam wàccee ko ci pays malaw laax laa Sidi yàlla tànn roxoy roxoy kaste ko ci ndam wàccee ko ca malaw laala sigi barahama la ilaha la ilaha illallah la ilaha la ilaha te kenn du baay baay du kenn du baay baay du